Donc c'est c'est à eux de décider kañ lañ koy. kañ lañ diffuser voilà. Mm. mais des fois gars yi dañuy teg foo xam ne lëndëm foo xam des fois yow yow. te <laughs> da leen di jaaxal nag te duñu am réponse yi moo tax da ciy baax tamit bu ngeen ñëwee ci yenn plateau yi. des fois waaw ngeen di ngeen koy leeral. li ci di xam parce que parfois li li paraître si ñenn ñi que ni amul sens mun na paraître ci sa fan si wala ñu la jege euh, que ni vraiment li am sens. et que duñu am peut-être euh, chance laaj la ko yow directement. donc pour ne pas que tamit nit yi di dégg dara di ko gëm. bu ngeen toogee des fois ci plateau yi bu ñu leen ci jotee rek ko actualité ba tey ci wàllub euh, télé donc ñu gis temps yeele coow dox ci diganté El Hadj Ndiaye ak ki nga xam moy sa grand frère mm-hmm. wala sa sa petit frère Ndiaga mm-hmm. donc ñu gis ni euh, problème satellite mo leen bolé je mm-hmm. pense que né affaire yi ba tey mu ci kanamu yoon naka nga dundee boobule ciow parce que ñom ñaar ñëpp euh, daf mu naan da ngay nekk entre le marteau et l'enclume parce que ki sa xarit la kii sa frère non bu boobaa mm. bu bu bu du du don problème de choix mm. parce que Ndiaga c'est mon c'est mon petit frère c'est-à-dire que le problème de la deuxième CV, c'est la deuxième CV et la TFM. Et la TFM, si. Ce n'est pas le problème de la personne de Ella Ndiaye et la personne de Ndiagandour. Non, ce mhm. n'est c'est pas ça. Du, du, du, Mais si vous c'est dit que vous c'est parce que vous avez dit Oui, Voilà. Légui, je profite de cette occasion d'émission mhm. pour parler directement à Ella Ndiaye. Mm -hmm. ndaxte El Ndiaye studio am laa njëkk toog way muy mhm. studio 2000 kon yaa ngi wax léegi 2STV yi pourquoi ma dem fa di liggéey loolu rek lu rëy la mhm. te nduur laa sant mhm. sama yoon nekkul si ku tooñ ak ku tooñ ku def ak ku deful loolu du suma domaine mais suma domaine mooy que ni je demande à El Hadj en tant que sa petite sœur peut sax doomam mhm. que ñu seq lépp lu ñu seq man ak moom mu seq ko ak sunu famille seq ko ak suma papa seq ko ak suma yaay ma koy ñaan ci barke lépp lu mu bëgg walla lépp lu mu gëm que nañu ko waxtaanee mhm. nee na mbir yi moom da ciy baax ñu koy waxtaanee nañu ko waxtaanee mhm. man je prends la responsabilité de demander pardon à Aladji Ndiaye mhm. sama yoon nekkul si amna wala amout. mais mhm. ginnaaw moom moo féetee mag sax Youssou mhm. donc kilifa ci Youssou je demande pardon à Aladji Ndiaye parce que képp ku la mag rek yow munoo fexe ba am dëgg waxuma nag côté kayit de waxuma loolu mais côté mag ak du yag ba alaaj njaay depp di demander pardon c'est à nous en tant que rak de demander pardon je te demande pardon ci touru famille Ndour bépp mhm. parce que euh, nit ki lu mu xam rek la xam lu mu xamul xamu ko man personnellement je suis une personne bo xamne ne xëy na dañ naan dafa am personnalité dafa dëgër dafa li mais très fragile j'ai vécu ça comme dama dafa dafa mel ni woon comme sama àdduna moom moo arrêté. dara dafa fort nag abi. ndax dafa fort. Mhm. ma koy ñaan te yàlla rek moom moo tax. ak wëllëre gi nga xam ne sunu borom dogal na ko ci ñun ak moom. Mhm. wëllëre gi nga xam ne jabaram Mariam Ndiaye séq na ko ak ñun man j'ai fait une chanson Fouta. j'ai chanté El Hadji Ndiaye ak Mariam Ndiaye. Mhm. te waxuma leen ko dama jékki-jékki toog rek Mariam yuuxu. ne ma dama tok rek ñu ne ma taalal sa auto radio ma tal yem ci nga may way mm-hmm. mu gaddu ñew mom ak alaaji ndjay sama kër mm-hmm. lolu lu rafet la deug la te grand bi lu rafet rek la xam lu mm-hmm. rafet rek lay def makoy ñaan te yalla rek a tax ak sama jëm ju ñàkk solo ji mu set ci seetuma nak ku def ak ku def lu am ak dina la ki seet sax nak ndax ndax li ko ñaan ni mom koko ñaan mom mu set la waaw ma ñaan rek ke wax ji grand ñu jël ko teg ko ci suuf ndaxte wax ji ginnaaw yow yaa moom moo ko yëkkati mhm. moom dong lañu ñu mën a ñaan pour ko mhm. wax ji daal

à la cité biagi ak yusuf mhm. donc suñu dem dem yena bokone ben keur ben keur cité biagi ah bon wa uh-huh. legi su yusuf su may dem di jënd pour togg. Mm. damay nek ci auto bi way rek lay def. lu romb ma reprendre ko. Mm-hmm. mu dem ci yusuf ne ko essayé abi yusuf ne ko ah mu ne ko essayé nuy la demé bobu xamul won sax yow yow. am nga talent way su may togg ci keuram damay way ba ba mm. asaman ci si set. Mm. donc mu wolu ma ñu dem studio elage yaay encore une fois. Mm-hmm. ñu dem fa ñu test sama ba yalla def. ma donne kuma donne ba chance su mën a mm. Sénégal set bi mm. émission Sénégal ma déglu kon loxo de ba mm-hmm. tay rek mm-hmm. ngi ci mbir mi mm-hmm. insister ci wax bi may sa fi sa fi sa defal la insister ci wax bi may wax grand man dina la wo dina man xamna man mën na dara ci man parce que suma plateau deux 2STV Marème daf ma naan c'est-à-dire que yow rek yaa mënoon El Hadj Ndiaye dara. Mhm. samay plateau grand bi mooy taxaw ne dama lay designal plateau bu nangam ak nangam. Mhm. loolu dafa rafet. dëgg la te billaahi ginnaaw lépp ci nettali rek lay mujjee nañu bàyyi rek mu sedd. Mhm. nañu bàyyi mu sedd. parce que jàmm moo gën lu mun ci doon. jàmm loo ko jëndee jar na ko. jar na ko waaw ndaxte Youssou démarré na ci jumtukaayu El Hadj Ndiaye. ba tax mu parce que de près ou de loin il a participé sur quelque chose mhm. concernant mon frère mhm. donc man suma rôle mooy que taxaw ci digg bi ba du dóor mhm. moroomam wala kenn du wax rôle te émission directement alaaj Ndiaye xam naa ni su ma fa demee du ma dàq. du la ma mm-hmm. ba lépp sedd. Mm-hmm. parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. la ñun ñëpp moo war a tooñ rek ngay tooñ. dëgg la ki la war a baal rek moo lay baal. dëgg la voilà. abi ci loolee ginnaaw ba nga ba nga ba nga ba nga tënkee euh, sa collaboration ak sa grand frère Youssou Ndour di ndaanaan mag ci réew mi. wallaay wallaay loolu ak a a way gis nga. macha allah album ah, macha allah gis nga album bu bés bu mu génneel balax mool ci mim abi mais mu way ci nag mu way xoolee ci Mor ba Mor ba dem na géej ëpp dem Youssou nit ñi dañuy fel fay barama neex nit ñi dañuy fel ni man maa ngi gis bari démb defe naa su ma jëm ci sati buuba sax ñi ngi wàcc euh, a euh, génn te bu Youssou Ndour tëgg ci rek laay génn di naan jàpp rek ci moom ngay jàpp. jéem wallaay wallaay donc ñu gis kenn du moom Ndour donc ñu koy ñaanal mom également gudd fan ak tamit carrière bu solide parce que teg na yëpp xale yëpp ci yoon ñu gis ni ci album bi di mbalax euh, daal dina ci rendre hommage sa way kat sa xarit di Thione sec mu nekk tamit titre bu neex ñu bëri mhm. ñu bëri rafetlu ko mhm. euh, sa diggante ak Thione sec ba doon ñëwaat parce que ku wax abi wax Thione Seck lu waay gàtt dégg dégg dégg way bu rëy ba mu la woyoon <laughs> wallaay way la euh, taggal la ci say maam donc mu nekk ay yëf yu rafet li nga wax ni rek réew mi ko war a tooñ moo la moom nga war a tooñ waaye tamit ku la war a baal la war a baal moo la war a baal mm. te ku lu baax yàgg na fi donc lool nga koy dundaat à travers morceau bi Youssou Ndour rendre hommage mm. euh, sa waykat ba nga xamante ni ñu ngi koy jooy ba tey noppeeguñu muy Thione Ballago Seck na mm-hmm. rafet Youssou dafay def lu rafet mm-hmm. ci la dëkk mhm. depuis que mu doon ki mu doon ba tey mhm. te reewul bewul mhm. reewul bewul ràññee na donc way woowu mu way coon sekk way woowu dootul fay dootul balaa gonu mbéyat na loolu dootul fay mu nekk loo xamante ni ci xolu ñëpp la dugg ndaxte diggante yu Ndour ak ak diggante la boo xamante ni diggante bu wér te la ndax Thione Seck ndam si yàlla si. ndam si yàlla si yàgg nañ koo seetaan mu naan man damaa bëgg Youssou Ndour. Mm-hmm. dëgg la Youssou Ndour ku ko bëgg laa. Mm-hmm. Youssou sax dégg nañ ko mooy mu ne Thione ku ko bëgg laa. waaw xam nga loolu. Mm-hmm. <laughs> loolu leneen la. leneen la moo tax des fois ku xamul rek. xamul xamul tey jii sama grande sœur bi topp ci Youssou Ndeye Sénabou. premier jëkkëram Mapenda la. Mapenda waaw Mapenda. kon xam nga ku xamul rek. xamoo mooy xamoo waali démb damay dox Sacré-Cœur rek.

nañu nañuy rafetal mhm. digënté yi buñu féké sax mu ñaaw ñu wax ko bam rafet mhm. ndax mak yi loolu lañ fi daan def mhm. loolu mënul jékki-jékki nak say ñu fék digënté mu dëng mak dox su su sedd ñëw tok wax ko bamu rek le ta kenn sax du xamne ke moko moko ko dox moko wax loolu dafa am solo may ñaan rek ku gisati lo xamne lu dëng la wala luy melni luy jalgati ñu waxtane ko بمرافق نحن من السنغال ci loolu dong lañu xacc mhm. té lolé ñun ñi taskatu xabaar itam am nañ ci vraiment pas de responsabilité. lolé sax euh, parce que dafa nek lu nga xamanteni euh, des fois da ngay wax peut-être pour éclairer la lanterne de certains même ñenn dañ koy dilee neneen alors que peut-être loolu du won li nga xamanteni mom mo ngi ci tax motax euh, ba ci suñu émission ñun fi en tout cas au niveau du Sénégal c'est dañuy fexé à chaque fois ba di rafetal parce que lolé c'est important mais abi batay ki sa walu carrière man journaliste la suma amé son invité damay gëstu ci moom <laughs> damay gëstu ci mom bu baax a baax parce que liko jax moo ko jaar ah. donc d'après sama gëstu yi ma def euh, découvrir naa ne jotoon nañ la nominé yàgg na euh, fële ci Afrique du Sud dëgg ci benn raaya ah. boo fa wowoon boo fa wowoon jot après finalement mujjul sotti mun nga dikkaat ci ci mbir moomu au fait mbir moomu nag mhm. daf may xaw a gêner tuuti pour ma pour ma nga wax ci pour ma wax ci parce ah, que d'accord ba may boo ci bëggul wax rek duñ ci